wala chers internautes ñu ngi toujours euh, ci tudd oustaz Modou Fall bi ñu ngi fii nag ak ki nga xam ne moom mooy waajuram bu jigéen donc yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax. asalaamaaleykum ginnaaw bi ne sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi sallam ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci Muhammad yonente bi sallallahu alayhi wa di sant nag papay Modou Fall ndax lépp mooma lépp lépp lépp lépp lu Modou man rek moom la. moo moo ma téye téye sama njaboot jàngal leen yar leen Modou di kenn koo xam ne dama koy bàyyeeg borom bi tabaarak ndax bu ma waxee ci moo Modou damay jooy ndax man namu dara ci àddina ndax Modou far lu ma bëgg suba jant soo ma nga ca mu indil ma nag xale bii barke Serigne Babacar si man duma wax loo xam ne du dëgg gis nga kii yàlla moo nu ko jox musul xuloo musul xeex demul dikkul lépp lu nu bëgg maa ngi Modou Fall ak papaam ak njaboot gi si kër gi aji mii mi ngi ci suba ba jant soo dafa yem ci sunu loxo yi jaaxalun wutul xarit wutul àndandoo wutul kenn ñun ñooy ay xaritam aji dina ginaar dina ceeb dina lu di lekk rek tufe aji daal lu lu bëgg ci kër gi yan na ko yàlla defal ci barke sëñ Babacar si bu ngeen dee wut jeeg bu baax daal képp ku bëgg a baax ñëwal si aji Njaay mu wax la ni ngay def ba baax Modou nag moom dama koy bàyyi yàlla ak yonente bi ak Serigne Babacar Sy barke yonente bi Modou Fall kenn mënul si moom dara dafa am ñaan way jur lu waay mën a wax kenn mënul si moom dara dafa am ñaanu way jur dana koo gërëm yal na ko yàlla jàppale yàlla musal ko ci cat ak làmmiñ ak lépp pexem noonu ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Moodu yàlla laa ko dénk ak yonente bi ak Serigne Babacar Sy wasalaam. tey lan ngay dénk ki nga xam ne ne sa goro la ku ko gis xam ne ne xale bu ndaw la mu ngi doog a dugg si sëy ak jamono ji léegi ni mu mel tey boo amoon ay conseil loo koy loo koy jox lan lay doon. maanaam aji moom dafa ñëw rek nekk palaasu doom yaa ngi dégg xuloowul xeexul liñ bëgg suba ba jant soo sabal néeg bi ñoo ko bokk duñ tàggali ko benn yoon. su ma ko gisul rek Modou daa wàcc ma ne ko demal sa borom kayit ñëw na amul dara luñ koy conseil ndax lépp li ñuy wër ci moom mi ngi ci moom barke yonente bi yal na ko yàlla teral. conseil tamit Modou ndax moodu oustaz la waaye góor góor dong la loo koy conseillé tamit ndax sa doom la. non Modou moom dama ko dénk yàlla ak alxuraan bi muy jëfandikoo ndax lépp lu mu wax ci alxuraan la ko wax ak wax yonente bi sallallahu alayhi loolu rek laa ko wax loo ci la ne. leneen lu mën a dégg toppatoo woon ko yàlla lan ko baal ak alxuraan bi nga xam ne ci lay liggéey wasalaam.